naaj jàmbaar maa ngi lay fay. ci loone lépp jàmm kay. daa mel ni da nga ñëw seetaan si. sama rakk mooy bëre. ñëw ñaanal ko suñu borom defal ko ndam loolu rek moo ñu fi indee ah waaw. Ama Baldé dama ko laaj léegi Parcelles Pikine derby mun na ma Parcelles Pikine du derby. non mun na nekk derby mun na bañ a nekk man li ma gëm mooy làmb rek mooy li may wax chaque jour rek parfois say say làmb day féete ci benn gox nit ñi bu ko jàppee derby ay làmb la rek mun weesu làmb nga. tey mun nañu xam combat soog yi moo tax soog yi dem ba féete parcelle Pikine looloo tax ñu bugg ko def derby mais Pikine derby la ak ñëpp géejawaay derby la ak ñëpp parcelle derby la ak ñëpp parce que lamb la lamb bu nekkul derby du neex comprendre nga peut-être loolu moom moo tax mais lu wér te wóor mooy lamb bu ci mënti nekk derby rek yàlla na jeex ci jàmm ak salaam mu bañ a jeex ci ay ni ñi bañ a jël derby boobu noonu di ko doxee di ko waxee na yem ci lamb ji rek. dama gis tamit sa rakk dugaat muy soq bu ndaw jël petit lot lan moo ko duggoo ci petit lot nga génn parcelle moom mu ñëw duggaat parcelle diggante ma petit lot lu waral loolu ndax bi ñuy gis ñëpp annonce bi ci Modou Lo lañ ko gisee moo annoncé ne euh, petit lot am na combat moom sook bu ndaw combat boobu nan la dikki waaw mais Modou moom peut moom noonu la mën a communiquer rek ku nekk am nga droit waxee nu mu la neexee di man li ma gëm mooy soq bu ndaw sama raq la petit lot sama raq la te ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ay dër bi buñ ko dugal ci bopp booy parce que ñoom ay booy lañ làmb xale la ñuy bëre ku ci daan sa morom yàqalu la dara ci sa yoon da ngay dem préparé wu jëwaat rek xam ne yeggaguñu fen segam ñun ñii ñoo yeggagul fenn waxuma la ak suñuy raq kon ñoom ay booy lañ te ñu ngi góorgóorlu yal na leen yàlla defal jàmm sama raq la am droit ñaanal ko muy sook bu ndaw maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam mais loo Lo tamit suma raq la comme ni soq bu ndaw nekkee suma raq ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ak wér ba bis ba yàlla may soq bu ndaw ndam loolu laa am lu ma ciy wax. gis ne soq bu ndaw bi ngay waaj préparé yaa moom yéen a àndoon naka nga gisee état de am ak préparation bi mu nekk. non soq bi ñu gis dafa jege. soq bu ndaw moom préparé yëfam la ndax man heure bu may préparé maag moom ñooy préparé ndoo te lamb yi ma mës a préparé yëpp fu ma dem maag moom ñooy ànd kon moom préparé moom jaaxaluma ci moom te moom bu ñëwee dafa nekk ci ay loxo écurie la nekk ñun amuñu ci moom benn responsabilité. di nekk xam sa cosaan wacc mu dem équipe Falaye Baldé lan moo waral que ñun ñëpp xam sa cosaan lañ nekk Jet nekk xam sa cosaan ma nekk fa te am nañ yaakaar ci Zil Baldé écurie bu Ama Baldé nekk Zil Baldé nekk fa comprendre nga. yaa maa ngi sama mbër nga. ci kooku sama mbër la. non dëgg ndax man moom wax dëgg fa neex yàlla bi muy dem écurie Falaye Ama moo ko jël si écurie xam sa cosaan yóbbu ko foofu comprendre nga te bi mu fa nekkee tamit rëccuwuñ liñ fa nekkee ndax mu ngi entraîné te bëgg na li muy def te gëm na ko te ñi ko yor tamit ñu ngi koy encadré kon ñun amuñu si dara ñun lim ji am mooy mu am combat ñu ñëw taxaw courage le bras di ko ñaanal mu yàlla may ko ndam. mais bi est ko bëreel. non non jarul mu ma koy bëreel moom yoonu làmbam lay defar carrière am man am naa suma carrière am naa sumay adversaire maak moom bokku ñooy adversaire moom xale la moom buy bëre boppam lay bëreel pour yàlla def ko champion suba combat bu am important lay bëre ci carrière am nag. lan nga koy wax. ci combat bi. non non lamb xale la amul lu ma koy xelal na ñëw li nekk ci xelam rek mu def ko na def yëfu xale xale day def yëfu xale xale kenn ko calculer loo mbaa nga naan ko lii ngay def wala lële xale la te mu ngi entraîné te xale moom bu nangoo entraîné rek bu ñëwee ne ko defal li nekk sa xel man loolu laa gëm am na écurie bu mu nekk ñoo ko encadré lu muy def ñoo koy def loo waaye man li ma koy wax mooy xale nga lii foo la dong jàppee ko contact boo ñëwee contactal loo suñu mborom may nga jël. mais maa ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy ndax suma rakk la te ku sori man la te ku sonn man la yee. kontaan naa ci